maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp monsieur ministre de la jeunesse je pense que la dernière fois j'ai prié pour vous je vous ai prodigué des conseils mais force est de constater que vous ne pouvez pas porter ce, ce ministère vous n'inspirez pas confiance vous manquez de tact et de talent et je peux vous juger je suis du département de Guinguinéo je peux vous juger en tant que président du conseil départemental mun naa la juger parce que je suis dans damay yeewoo ci département Guinguinéo di xam lu fa xew vous avez échoué contrairement ak sama bàjjan li muy wax man ñi ma yónni waxuñu ma loolu kontaanuñ ci yow boo jëlee Prodac programme bu baax la nekkoon nga fa su ma jógee ci conseil départemental programme bu baax la ba léegi ñu ngi wax ni dag yi benn pareegut ba léegi kon loolu lan mooy fooy sa résultat est-ce que le président de la république évaluer la la en tant que président du conseil départemental évaluer la ci Prodac balaa mu laa dugal ci ministère de la jeunesse c'est important suñu jëlee xëyu ndaw ñi foofu aussi échec bi am na booy jël par parloo ngay jëlee ba pare chiffres yi ngay avancé du chiffres yooyu ñoo baax de pour cent man je ne suis pas d'accord avec vous def nga ay recrutement dix mille recrutement ci environnement sept mille agence sénégalaise de la de la forestation deux mille direction des eaux de forêt euh, environnement et établissement classé ñoom ñëpp ay contrat à dire déterminée la entre août 2021 août 2023 daanaka jeex na xaw ma ndax renouveler nga ko mais gis naa nga signé ak contrat yu bees te ñoo ñëpp ñu ngi demandé vraiment seen arrière de salaire depuis trois mois loolu nag bëgg naa at yi nga indi ma ci leeral leeral parce que ñoom ñu ngi waaj a def def préavis de te boo jëlee loolu gisuma nga prôné benn yoon pour que vraiment université mu ngi tëj ñu gis wax dëgg yàlla yeneen activité lucrative yi di ubbi gisuma benn taxawaay la ci ministère de la jeunesse am Kaolack nag jël nañ ko fa mais jël nañ fa 331 Nioro 336 Guinguinéo 192 c'est peu pour le département de Guinguinéo toujours abandonné maison de la jeunesse du priorité pour Guinguinéo du priorité pour new lu tax ma ne la du priorité du new fan yee ñoo ngi doon discuter ci abri provisoire CEM CEM CEM CEM Abou Diaw ba xale yi ba waa Guinguinéo ñooy cotiser pour réserver abri provisoire yooyu te yow en tant que président conseil départemental les collèges la yow yaa ko war a gérer loolu fu mu nekk chef lieu du département de new centre formation bu nekk ma Mbadakhoune am na programme boo fa def mais ñoom centre formation bi centre formation bi parewul woon ñoom foofu lañ nekkoon di jàng nga jël am leen dafa fu mu toll nii centre formation bi un euh, parewul ba pare yow nga nga nga nga fi nga xam ne annexe bi nga xam ne moom moo nekkoon ancien ancien ancien euh, communauté rurale bi loolu tam bëgg parce que waa ko et des conseils municipaux soo suñu demoon ci un milliard yooyu ñu defar stade de bi bi nga xam ne depuis 2000 ñoo koy xaar loolu moom mooy priorité Guinguinéo bu ñu relancer l'usine de glace dina fekk xale yi mun a liggéey donc euh, euh, Souleymane Ndéné moo ko defoon industrie de transformation du sel Mbadakhoune dina ci gis boppam Paracel dina ci gis boppam Palado dina ci gis boppam Ndofane dina ci gis boppam nga ci Ngàcc Nawde dina ci gis boppam kon di nga def plus-value xale yi dina mën a am fu ñu liggéey 34 milliards yi nga wax nag xaw ma noo ko cofee noonu bugg naa nga leeral ma ko parce que gën nga problème. 34 milliards yi lan moo tax nga wax ça concerne projet boo xam ne bon je vais a venir merci je vous remercie.